kii man maa ngi tudd Mouhamadou Lamine Diédhiou nekk fii au niveau de la gare routière de Ziguinchor euh, tey comme nous l'avons constaté euh, ñun ñëpp ñoo xëy gisandoo ko ñun euh, maanaam li doon xeex jamono yi ci gannaaw Papis xëyaat na xëy benn jour defaat avis de force ñëw rek yokk paas yi encore delluwaat fa 100 francs yi xëy nañ nag chauffeur si nga xamante ñoom ñoo war a yóbbu ñaar fukk yooyu nanguwuñu ko li bëgg nag mooy médias yi nañ tasaare lii bu ko defee ministre des muy voie élargie muy autorité étatique yi nga xamante ne mérito nañ ñu jox leen kayit yi nga xam ne ñoo seq mbirum wàllu gaaru ceer bi jaar nañ fa muy fu mel ni préfecture mel ni gouverneur fu mel ni mairie fu mel ni chambre de commerce fu mel ni chef religieux yi nga xamante ne ñoo téewoon garage bi jamono bi muy am problème fii durant quatre ans ñoo toogoon waxtaan ba tënk li ñuy tënk yëpp ñu teg ko fi amul lenn loo xamante ne tey jaar na ci yoon comme ni ko waxee woon tey ñu xëy mu xëy xëy xëy jékki-jékki encore ne yi nga xam ne coowoon nañ ko fi jamono yi la passé ba préfet arrêté na ko ba mu neexoo mu xëy xëy dem indi ay mercenaires jëlee leen Dakar depuis jour assemblée parce que assemblée bi def na ko comme ni ngeen ko waxee ñëwoon ngeen ci assemblée bi def na ko limal ñu 151 millions ba 14 millions garatière bi yeen ay ay journaliste wax leen ñu en tant que journaliste 51 millions ba 14 millions fan ngeen ko gis ci garage fii 45 151 millions 151 millions ba 14 millions yo xamne ne wax leen ñu fi ci garatière fi fan ngeen gis fo xamne 45 chargement suuf xajna fi ngeen ñuy wax gis nga dafa am lo xamne gis nga nit ki mënul nekk di fooyee xelu nit ñi autorité yi diko gëna jappalé ci loolu muy gën di fooyee xelu nit ñi li ñun ànduñ ci parce que bo gisé fu mu li mu bayiwon ko jëk waat jëk def ko c'est parce que dañ ko dolel liko dolel nak ñun mom lañ bëgg xam moy lan ndax ñun app nañ ci li ba nga xamante ne nañ ñu tañu ci kasso bi wala ñu bàyyi ñu demee duñ ko bàyyi liñ bëgg moy li chauffeur ci bëgg moy lan chauffeur liñ bëgg moy ñom mënu mënuñoo yóbbu ñaar fuk yoy ñaar fuk yoy nako ko bàyyi loolu lañ bëgg jërë ngeen jëf am leen jàmm asalaamaaleykum man may Makan Ndiaye bokk ci garu ceer bi ñun bu ñu xëyee fekk chauffeur ci bare buntu bi ñun ñom mënu ñoo joxe safra ñoom bu leen neexee ni mën nu koo joxe ndax cent franc yoo xam ni demul ci seen poos ñu ngi koy dagg ci clients yi te passe Casamance moo gën a seer Sénégal gépp raison yëpp moo ci gën a seer ba pare nga wiñu ko bëgg a boo ci client yi keneen cent franc boo calculé bi par pour mën naa génne boo calculé bu doxee mën naa génne neuf cent mille par jour bu doxul gën kaa tuuti war naa génne six cent mille kooku mbëkk ko jox benn promoteur boo xam ne bii bokkul ci garage bi Macky Sall yebal na boo marché bëgg koo def ñu bañ far boo marché antu ñu yebal Thiès bëgg faa def loolu mu bañ ñu yebal Kaolack bëgg faa def mu bañ mu yebal Ziguinchor ñu bëgg faa def mu bañ ñu yebal Ziguinchor ñu bëgg faa def ak Tamba ak léegi ci biir loolu moom la mu bëgg a jël dit ko xam ne kii lu nangu loon Macky Sall mu bëgg seen ma parmatoor loolu nag moom la sawar si lànk ba tëdd gënaaj wa yokk ba pare te jëriñu woo ci kooku kenn du ko nangu maay wax mu def assemblée andi ay nit Dakar ay kat yoo xam ne yi Dakar la leen jële andi leen fii ñu ngi nii nu mu xàmme leen leen bu ngeen toppee garage bi di nga leen gis yaa ngi dégg yaa ngi ñoom ñu bëgg a xeexal journaliste journaliste dik di def liggéeyam nga di ko doog fi defee kooku narul lu leer déglu leen damaa bëgg nag lii ma wax ngeen tas ko fépp journaliste bi dikk di def liggéeyam ngeen ni ko lii bul ko fi defee bëgguñu mu leer bëgguñu nit ñi yëg ko ministère de transport lañ bëgg mu dégg lii lu mu gën a gaawee mu dem ba ci Macky Sall ndaxte li ma la xamal sa chauffeur si fi mu te lii Papis ñu yaakaar ni mën naa nekk préfet Ibra Fall dafa liggéey fii ñu tëgg suñu règlement intérieur bu garas ñu ni kenn mënut a bët sart yi Papis bind na beneen règlement intérieur bu xam ne bii nee na ku fi dëkkul doo fi wote ko amul ko amul un million doo doo bokk ci garas bi te li ma la xamal ba muy dem dañ koo cotisel moom mu joxe cinq cent loolu leer na déglu leen loolu baax loolu mënuñu ko tey ñu ko tey mënuñu ko suba safoor sànq nii bu leen neexee ngeen jël leen ngeen gis mbooloo mi lànk bañ a jox ko saafara ñii la du ñun ñoom bu ñu bañee il faut ñu déglu leen wasalaam